<laughs> asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa Sénégal ma la cuut biri borom kontaan naa ci abonné yi kontaan naa ci sam waaye kontaan naa ci commentaire yi ak partage yi léegi yokku naa ci loolu ndax gars yi nañ ma yokko ci gars yi ki may woon ni nag benn paal boo xamante ni ndar la dëkk xam ngeen ne ba léegi maa ngi ci kaa gaynde gi déglu leen maag moom dama ci wut ay matuwaay yu goo koŋ nag déglu leen maag paa ba ki ma jox numéro ba pare wool Baye Diallo noonu la xoromoo noonu la xoromoo te ragal fa dëkk fa dëkk fan sama maam te ragal nee maamam la dafa xoromu ah, loolu te ragal léegi gars yi da bàyyi ma seetaan ko ma ma woo ko téléphone gars yi kontaan naa ci abonné déglu leen moom kontaan naa moom ak pees <laughs> moom rek déglu moom rek salaamaaleykum. waaleykum maa ngi ziar na eh, waaw maa si jàmm baax man la Cheikh Faye. Cheikh euh, euh, laa dëkk nag euh, jiite benn daayira bu naan Masaliku. Ah. waaw dañoo waroon a ñëw ndar tey nag. waaw. waaw amoon ndigal lu ñëwoon fii léegi nag dalukaay ak yooyu am ñu joxoon sa numéro. waaw ñu bëggoon nag du ku ñu dalal. loolu de xéewal la rek mhm. ndax bu ngeen xoolee ndam ni mu toll mhm. amu leen ku ngeen ci seet ku dul mag mhm. mais wax dëgg yàlla da ngeen ñëw bëgg a daayira bi bëgg a ñëw si kër gi dal waaw daayira bi ñoo bëgg a ñëw fi waaw bu ñu war a def euh, pour euh, jaar-jaari sëñ bi waaw kay alhamdulilah waaw kay kay dara baax na léegi kër gi yaatu dañu amoon sax ñaari gan ñu àndaloon. ah alhamdulilah alhamdulilah. Ah. alhamdulilah. Eh, eh. dàqal bu jigéen bi dàqal bu jigéen bi dàqal bu jigéen bi allo waaw. allo sëñ waaw waaw gaynde yi ñu joxoon sëñ bi tax a adiya. waaw waaw sëñ bi nañ ko indi euh, ndar. Uh-huh. comme que sëñ bi sëñ Tuubaa fa la lépp lépp defee lépp ndar lañ ko la ko defee. Uh-huh. nañ ko indi ndar mën koo présenté foofu du ko defee euh, ñu mën ko ñu mën fay ñëw tey loolu taxoon daal ñu bëggoon du ñëwee. Uh-huh. Euh, dañoo woote préfet bi boobu bi dañ ne foofu foofu gaynde nekk mënu am mënuñoo mën fa am foofu gaynde ne mën ëm fa. léegi ñu bëggoon daal du ñëwee nga aal ñu fuñ ko dugal en attendant ba ziar ba nit ñu ñëw ziar pare ñu doog a ñëwaat bi euh, dégg naa li nga wax waaye man de sama benn xarit laa leen bëggoon a boole pour ngeen dal ko parce que man sama kër moom ñaari néeg ñoo fi nekk ma ma nekk sax nag partenaire bi xale yi ñoo fa nekk xam nga kon foofu gaynde daal naa ni dina ma xaw a jaaxal. ah léegi lii de la ñu waaj waxoon ne woon nañ daal saa yi moom bis boo leen ko wooyee dina nangu ndax moom dëgg yàlla moom mbiru sëñ bi loolu lañ ko ci wax. man te li ma si jaaxal mooy ñaari gaynde yi rek fu fu ñuy fatu. Ah, a ah, kon kon baax na kon moom ay ay ñu laamu keneen. baat yi nga xam ne li ma ko dégg. <laughs> yi mi ngi noonu ah di wax ne kontaan naa ci abonné yi kontaan naa ci sami Serigne Cheikhouna Fall yaa salaam moom moo leen woo ci bisam bi muy def fële ca di wax ne gisoo leen li ma jënd ndax bégal fans yi képp moo tax ma jënd ko pour bégal fans yi ah yoraat beneen téléphone boo xamante ni ci laa leen wanee vidéo yi pour bégal fans yi wanaa leen beneen boo xamante ci laay appelé kon man soppe euh, Sénégal yi rek bég moo ma tax a jóg leen tax maa jóg kon maa ngi ñaan yéen ñi nga xamante ni gar nga ci pass bi abonnel te sem te partagé te yéen ñi xam ngeen bëgg a jox ay numéro mën ngeen ma ko jox ci commentaire yi wax ma nu mu tudd sant jaa ngeen jëf